commission bi dañ ko def pare na ko Pape Alié Fall dafa regroupé le disciplines comme MMA taekwondo ITF samodo ak aikido léegi nag dañuy def ay ay combat demi final final vraiment ñu def ko à l'honneur de Pape Alié Fall ñu xam ne c'est un c'est agent de la Senelec mu nekk délégué délégué Senelec Dakar 1 parce que lu seen pare na ko moom dafa nekk koo xam ne ku jàppale nit la ku jàppale techniciens yi nekk Senelec yëpp moo leen formé ba pare nekk un homme social un homme boo xam ne tànqamluwul dara si tànqamluwul tànqamluwul benn agent de la Senelec ñëpp la boole yemale ñëpp la boole yemale sur le plan sur le plan technique sur le plan social sur plan moral c'est un boo xam ne vraiment boo gisee moom rek xam ne sa xel day dal ndax leen c'est un c'est un véritable gagnant c'est un gagnant comme anecdote il a toujours dit que moom bëggul des ginnaaw li mu li mu dugg rek il va être le premier il va être le meilleur esprit boobu nag moom la doxal ñun moom doxal ak agent Senelec doxal ak prestataire doxal ak ñëpp suñu biir Senelec donc euh, moo tax ñu gis ne comme euh, l' euh, académie des arts dafay grouper les arts martiaux comme MMA Samado Taekwondo ITF te ñun on cherche les meilleurs pour les parrainer sur compétition ku ñu parrainer nag da nga nekk le meilleur sur le plan social sur le technique sur le plan administratif ci wàllu technique lépp loo xam ne daal da nga sa entreprise nekk fa le meilleur ñu on te choisit comme un parrain parce que tu es un modèle tu es un modèle parce que modèle la c' est un gagnant c' est gagnant donc euh, l' académie des arts regroupement l'apkido le MMA le taekwondo def ñu ñëpp toujours ñu ngi le les gagnants derrière ceux qui ceux qui prônent pour la victoire il n'a jamais découragé sur aucune situation situation bu nekk il toujours en avant da koy problème te loolu tout le monde témoigne te loolu ñëpp ñoo ko témoigné ñëpp ñoo témoigné ne euh, vraiment c'est un c'est un xam ne problème boo am ba ñëw si moom rek day saafara parce que moralement il est c'est un gars boo xam ne vraiment bien équilibré boo boo toogee moom rek dafa njëkk a xel dalal sa xel moraliser la que mu nekk programme social que mu nekk programme dans le cadre programme dans le du travail lépp da lay da lay moraliser d'aller leur parler waxal solution bi ngay jàpp pour résoudre le problème là beaucoup de gens de la Senelec progressé nañu avancé nañu grâce à Pape Alé Fall ndax ni mu liggéey moom ni mu mel ak ni ak ñëpp si agent yi de te loolu témoignage boobu agent yeeg sa famille xarit ñëpp ñoo ko témoignel comportement boobu moo tax ñun ñu l'avons choisi comme parrain parce que c'est un gagnant c'est un gagnant c'est un gars xam ne socialement il est tout le monde moralement il est boo ko gisee sax la daal professionnellement il a formé beaucoup ñu avancer dans le cadre du vraiment loolu mooy biiru parrain bi. encore une fois c' est pas un bout de cas c' est pas mais il aime beaucoup les arts parce que ñëw na ñëw gis ne arts yi li ñuy former moralement li ñuy former nit ci su ñu fay nit ki ñu fay nit ki si wàllu résistance résistance physique résistance morale arts yi boo si nekkee sa daal day dal mu mu dugg benn problème mu jaaxal la en tant que pratiquant art ba nekk pratiquant lépp lu nekk lu ñëw rek da ngay dal gis nañ loolu si moom ñun di kat esprit ay massa am complètement ay massa la am kon kii buñ ko pare ne suñu compétition par nañ ko un gars xam ne c'est un modèle un baa xam ne vraiment dirigeant la la sur tous les plans sur tous les moo tax buñ ko pare ne moom gis nañ li ka nekk na lu lu best moom waaye buñ ko waxtaanee bu bi moom ne kan ñun chaque fois dañuy gis le meilleur le meilleur la ñuy parrainé la meilleur sur le plan social le meilleur sur le plan technique le meilleur sur tous les plans ñu xool la ñu première édition ñu nga xam ne académie des arts nga xam ne dafay recruter président académie des arts c' est maître Dame Seck waaw man je suis le président des arbitres au niveau de l'Aptido en même temps je suis directeur technique adjoint MMA Sénégal nekk euh, maître de salle si biir Aptido bi. lan mooy bii compétition tournoi bi lan mooy bii biir tournoi bi dañ si dañ si jublu pour maanaam teral teral en gagnant kii maanaam kii dafa dafa wane sur tous les plans on a boo xam boo ko xoolee rek référence la te nit ki lépp la dugg rek am référence pour avancer moom c'est un référence boo xam ne ku jaar si moom dootoo am benn problème lu ñëw dala kay dala dal sa xel ñoo ne kon kii mën nga ko jël mu nekk référence sur beaucoup de beaucoup de situation même si supérieur si supérieur en témoigné témoignage bu am solo si moom nag nag la añu ko baax la allié ku jàppale agent yi la allié koo xam ne vraiment boo toogee moom rek rek vraiment da ngay avancer techniquement moralement sur le les plans. amul critère âge ñu ce qu'on cherche dans toutes les entreprises mooy les meilleurs dans les entreprises mun na nekk DG mun na nekk mun na technicien koo xam ne daal dans l' entreprise c' le meilleur boo xam ne ñëpp ñoo ko bàyyi xel na ci kat bu ñëwee lépp a saafaraw maanaam ñun cadre boobu la ñu xoolee ne kat dans les dans les entreprises que mu nekk le DG que mu nekk l' que mu nekk lundi bi nga xam daal dans l'entreprise tout toute l'entreprise ñu ngi koy témoigner mbaaxam sur le plan moral sur le plan technique ku mel noonu dañ koy jël def ko suñu parrain. suñu condition bi. sa ñu jagleel saalam pour mu organiser académie bi nga xam ne ci lañ leen invité tey donc euh, salle bi ñu ñëpp dañoo mobiliser euh, suñuy ressources xaar ñu sponsor de ñu engagé suñuy ressources suñu propre fonds. xale yoo xam ne sax liggéeyuñu u ci nekk def nga sa loxo à la poche pour mën a participer ci euh, organisation bi euh, euh, parent bi lépp lu mu indi après pour le pour le développement de ces disciplines ñun dañ ko jël comme njukkeel ak sas parce que suñu maître lañu lañu honoré en lui confiant la première organisation la l'organisation de cette première académie euh, d'arts martiaux yi nga xam ne dafa inclure ñeenti discipline yu yu yu bokkul. mu nekkee aussi un défi parce que c'était une première pour woon ne ne que nit bu ñu bu mobiliser rek lu ñu song mën koo daaneel te euh, élèves salle bi yëpp lool loolu lañ def waaw bëgguma tudd ay ay chiffres mais bu ñu waxee li ñu mobiliser ci ci budget bu leen ne kii ñii ñoo ko dindi euh, indi da ngay da ngay da ngay jaaxle. lépp nag euh, maître euh, ass moo tax parce que moo ñu won lu tax nit ñi euh, engagé wu motivé wu man ku ma gis xam ne du ma xale mais su ma nekkee ci aar aar bi di ci yëngatu moom moo ma ci dugal moom ma ci engagé ba ba léegi salle bi ñëpp aussi même témoignage bi la ñuy def amuñu amuñu fayam amuñu fayam te on espère que académie bi dina gën a def promotion discipline yooyu parce que sénégalais yi mën nañ ko mën nañ ci gën a jëf bénéficier wu buñ ko buñ ko buñ ko xamee parce que loo xam ne day tax nga mën a aar sa bopp day day day tax nga mën a garder sa forme physique mentale intellectuelle yaakaar naa kooku yaakaar naa ne euh, ku ko xam di nga ci di nga ci dugg moo tax vraiment c'est avec joie que Euh, engagé wu ci organiser académie tay bi. bon académie bi je maître je pense que bi mooy bu njëkk bi de première édition bi waaw bi mooy première édition bi bi mooy première édition bi nga xam ne salle yëpp dañuy daje nekk euh, euh, Dakar ak fu nekk envoyé seen meilleur élément pour ñu ñëw combattre defaale démonstration promotion discipline yi quoi. ma doon wax ne pour parenage bi dafa am kenn ci ñoom kuy liggéeyee Senelec. mu ma doon suivre de loin mu ñëw ne daf may proposer parrainage mu ngi tudd maître <laughs> John maître John ñëw proposer ma ko ne ma nag du problème mu xaalis du premier mu notoriété mais dañoo gis sa jikko en tant que manager Senelec ñëpp apprécier la moo tax ñu ne la yow kenn gënu la yey nekk parrain donc loolu moom moo tax ma accepté ko démb dama doon jaar foofu pour xool leen mais ba ma leen fekkee te fu ñuy liggéeyee sama xol dafa gën a sedd ma ne maa ngi fàttaliku li ma doon jàng bi ma nekkee xale leçon instruction civique yooyu laa fekk ñuy def ndeketee arts martiaux yooyu yemul kese ci ay sànni tànkak ak dóor kurpeñ mais aussi dañuy éduquer xale yi éduquer ñu maîtriser nga respecter say waajur respecter say maître ñoom seen devise maa ngi dégg ne ne jamais mentir toujours dire la vérité ah ñu xam lan mooy drapeau Sénégal lan mooy devise du Sénégal ah comment vivre dans son milieu garab yi nag leen di entraîner et cetera loolu mu neex ma lool ci biir lan moom moo gën a neex waaw man du ma karatéka mosuma def karaté xëy na bu ma nekkee xale ndi intéressé woon trop ndax ay film Bruce Lee yooyu ñu doon seetaan waaw mais lii lu bees la ci man ma koy dooru découvrir yaa ngi ma la laaj sànq naka lañu fa la ñu jëm ak ñoom donc il y a le responsable du marketing ak chef d'unité am daanaka Senelec dañuy bëgg pour mu sponsoriser événement yu mel nii ñuy fexe ba nga xam ne ne marché martiaux vraiment ñuy ciy teg suñu loxo bu baax à travers nos responsabilités sociétales et c'est possible parce que lii ñu gis nii bës bu eggee ci seen nopp ak photo yu demee noonu je crois que dañ gën a def ay jéego par la de façon nee naa leen am nañu benn benn samay perspective la bokk moom mooy fexe ba agent Senelec yi parce que dañu gis ne ñun dañoo bëri ay agents yi nga xam ne dañoo nekk ci biti ay agent de contrôle ay ñiy def coupure ñiy def remise et cetera te la plupart du temps dañ leen di agressé ci seen biir liggéey te du yoon nit yu comprendre ñu lan moo tax ñoom ñu def loolu ñun nag ci suñu biir liggéey sant ñu kenn mu dóor wala mu xoloo sooy def sa liggéey ñu tere la dañ ne nga delluwaat ca kër ga ka la yebaloon nga wax ko ne ko man mënu ma def lii mais désormais danañ fexe inscrire ay club ci suñu biir entreprise pour que ñoom ñu jàng self defence ndax au moins soo dóorul kenn tam ku lay